رحمن يا رحيم ربي بما يسر الأسان قد فجعا بجاي أفضل لمن لله خلجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملاح billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bokki jullit ñi seetaan salaamun min allahi aleykum wa rahmatuhu wa nag fa tabaarakallaahu dafa jëm ci wàllu maanaam taxawaay bi nit ki war a mën a taxaw ngir tàllal loxo boromam ñaan ko am lu mu ca yaakaar wala boog ki dem ñaan lu ji ngir am lu mu ca yaakaar ndax yàlla rek mooy nangu ñaan waaye it ñoo xam ne ñu yàlla dafa fëgg seen bopp itam ñaare loolu ñu ci am ñu ci excellé wu maanaam ñu am ci xam-xam bu baax a baax ba am ci ay résultat ku mel ni alaaji Jili Gay mi ñu dajee tey jii moom ca la bokk ñu am ci ay seede yu bëree bari ah, ci ay mbiram mu jóge fële ca Touba Jili asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu dala jox kàddu gi nga nuyoo ñu dugaat ci waxtaan bisimilah asbillahi mina seytaani rajim la hawla wala quwata illa billahi alxaliyil alxasim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أقدم تحياتي أولا إلى الخليفة الهام لطائفة المريدية ثم إلى خليفة الهام لطائفة التيجانية وإلى أحباء الباخين أقول لهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا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 di nuyu ñëpp li wax leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf sëñ Jiir yow tey euh, su ma la doon laaj sa jaar-jaar sa njàng yan daara nga jàngee ci yen loxo nga jaar ak itam lii nga xam ni itam am na yàlla lu mu la ci faggul euh, yaay kan. waaw man maa ngi mën naa ne maa ngi dëkk Touba juddoo Touba suñu waajur moo tudd sëñ Moustapha Gaye sëñ Moustapha Gaye moomu euh, dëkk Kàbbu gay ku ñu wax sëñ Bala Yasin Kàbbu mooy baayam waaye yaayam tamit di soxna Mariama Diop Mariama Diop di sëtu euh, di sëtu Maxtaar Ndumba jóob ca Kokki euh, maam Maxtaar Anta moo jur Mariama Diop Mariama Diop moo jur suñu Moustapha Gaye waaye soxna Mariama Diop moomu moo bokk ak soxna Faati Xari Diop soxna Faati Xari moo jur suñu Mour Faati Xari noonu lañ bokke muy jarbaatu suñu Masamba Mbàkke sama baay jarbaatu suñu Masamba Mbàkke la waaye tamit maanaam soona Maguette Gaye mi nekkoon ko seen son yobu moo sama waajur ñoo bokk ndey ak baay muy waajur suñu Modou Abib loolu moom defe naa doy na ci xamante léegi man suma wàllu bopp maa ngi jàngee ci daara suñu sooy bu Mbàkke suñu sooy bu moo ma jàngal joxoon ma ko ñu wax euh, sëñ Dan Bousso moo doon jàngal alxuraan da si yàgg mu jël ma jox ma sëriñ Saaliwu sëñ Saaliwu yóbbu ma daara njurul jox ma ku ñu wax sëñ Abo Guèye ma yàgg fa lool jàng fa ba mu yàgg mu jóge foofu dem Ngay Ngay sama dëkk maam sëñ Moustapha Gaye bu Ngay Ngay fa laa jàngee xam-xam yii xam-xam ñaan yii fa laa xamee lu bare bare bare bare bare bare mhm. alors Djily euh, ci laaj yi la war a laaj parce que c'est important mooy dafa am ñoo xam ne dañ leen di gis ci réseau sociaux yi ak ci télé yi ñu naan dañu ay jinne ah, lu mel na jinne loolu moom yow lan lan lan nga ko gisee. waaw ñooñu am na si ñoo xam ne nii mën naa am dañuy wax wax nañ dëgg waaye am na si ñoo xam ne si nii mën naa am wax ñu dëgg waaye li ci gën a kii daal mooy jinne moom bu fekkente ne ab sëriñ ga maanaam am naa junne mooy maanaam mi ngi mel ni nga maa ngi jàng am naa befem maa ngi jàng am naa befem waaye junne am na lu ko gën mooy rawaan junne lu dara ay mbir kenn rawaan mooy sottal ay mbir te moo gën a baax ndax boo fekkente ne turu yàlla nga yor turu turu woowu day dem ba nga xam ne si nii day jun ba da ngay njëkk am junne junne jooju day seey junne ji bu seeyee nga am rawaxaan rawaxaan bi day dem ba seey rawaan bi bu seeyee nga am xuddaam xuddaam bi day day dem ba seey bu xuddaam bi demee ba seey nga am lu mel ne ay kuró bi yoo yoona yooyu yëpp dañuy dem ba seey ba ci malaayika mën nga koo am junne daal mooy lu gën a ndaw ci lii ab sëriñ war a am waaw maanaam tox ko am solo tox koo am solo daal du lu am solo su ma dégg ñu naan am naa jinne wala lii wala laa loolu junne loolu du lu am solo daal du lu am solo ci mbiri sëriñ daal yow jàpp nga ne sëriñ mu gën a sell ci turu yàlla walaa ay moo moo moo moo koy mooy moo moo baax nga xam ne si da nga ci ay rawxaan rawxaan daal mooy mbir yi sëriñ bu naan am naa ay daal moo gën sëriñ bu naan am naa ay jinne d' accord alors seytaane ci boppam. Hmm. dafa am ñu ne seytaane ñu ne wàllu bët la wala ñu ne wàllu jàpp la yéen nu ngeen nu gisee baatu muslu ci seytaane mooy lan. waaw seytaane moom mooy junne sayaatin rek dafa am junne yoo xam si ne maanaam dañoo tuubut dañuy mën a ànd ak nit di ko defal yëfi seytaane di ko di ko jommal di ko di ko jaaxle surtout nag buñ dee bu dee ab jullit bu dee ab jullit dañ lay gën a jaaxal di la gën a jaxase di la dugg di mën a def ngelaw. wala mu sopp ko jaan maat la wala mu mu jo tiital la ba nga xam da ngay tiit gis nga junne moom boo ko gisee ma na laa tiital ndax junne dafa dafa xaw a ñaaw daal dafa raglu loolu mooy junne sayaatin waaye am na yeneen junne yoo xam ni si nii ay awliyaaw lañ yu baax yoo xam ne si nii ay jaamukat yàlla lañ yooyu junne waxuma leen dañuy jaamu yàlla ñu fekk ku mel ni Sëñ Tuubaa wala Alaaji Maalik ñu dem jébbalu ci moom di ko di ay seeni di def noonu yu mel ne ay junne sam xoroosin yëpp dañuy ay junne yu baax waaye am na junne yoo xam si ni ay seytaane lañ ay seytaane lañ waa kër iblis lañ baaxul iblis la ñuy ñoddal iblis la ñuy ñoddal di leen di di di leen leen di leen yàqal di yàqal doomu aadama yi waaw d'accord jiri euh, ci li nga wax léegi jàng alxuraan am na xam-xam yoo jàng est-ce que nit ki man hmm. lañ koo liggéey dindi liggéey bi wala ki ko liggéey rek koo mën a dindi liggéey mooy lan waaw liggéey nit mooy maanaam exemple nga jël turu nit turu yaayam adat ko boo ko adatee xam ban tur ban ban ay ban tur moo ci nekk nga liggéey ko mën nga koo liggéey ci fas nit mën nga koo liggéey ci fas ko jet ko fas ko nit mën liggéey ba noppi ci ay xaatim ay xaatim ak ay turi junne junne yooyu ngay am nag pour mën a liggéey nit ki ndax xaatim bi képp boo ko kaamaatara ba bind ko teg ko fii du jariñ kenn dara waaye nag da nga koy euh, werd ci turi junne yi di koy werd ci li mel ni euh, xam-xamu euh, waaw dafa am xam-xam boo xam si ni maanaam euh, nooraani yu nooraani yu la am sulmaani yu hmm. xam-xamu sulmaani yu moo gën a gaaw si jabar nit loolu njabar la daal hmm. waaye nag maanaam bu fekkente ne ab julit nga te lu baax ngay def doo doo jabar doo doo ku ñu ku ñëw si yow liggéeyal ma doo ko doo ko nangu daal doo ko nangu non doo ko nangu waaw waaye war ngaa xam jàngkal ba nga xam si ni boo gisee kuñ liggéey da koy xam dindi liggéey am na. dindi liggéey am na bu baax am na secret yoo xam si ne yow mii su ma la ko waxoon danga nga si mën a dindi liggéey da nga si mën a dindi ku ñu ku nga si mën a dindi bu ci bu a gaaw. maanaam bu jàpp. waaw. ñu liggéey ko ba mën sa dem bureau wala bopp bi di metti wala day tëdd rek wala ay. dindi liggéey fatiha kitaab rek. dafa dafa dafa gaaw ci dindi liggéey. dafa am ay secret. dafa am secret yu ci nekk yoo xam ne du ma ko leeral waaye dafa gaaw ci dindi liggéey dafa am lu ñu ko defee nag ndax dañ ne boo ma ko lee alxuraan am nga am nga gaaluk or waaye amoo caabi ji faaw nga xam secret yi doo xam caabi ji di di tijji di tijji di mën a jëfandikoo. di mën a jëfandikoo lu demee noonu alors. Hmm. biir liggéey boobu ci dindi ngeen koy dindi ci kayit bi mooy wax bayre nag. waaw bayre am na am na bayre yoo xam ne si nii tamit maanaam dañ koy am na ay ay ay alxuraan yoo xam ne si nii boo ko booleeg yenn xeeti sunguf day nekk bayre am na tamit maanaam yenn xeet sunguf yoo xam ne si nii tamit boo ko boolee xam ko xam heure ba nga koy wut day nekk bayre bayre moom lu am la loo xam si ni maanaam lu lu nit mën a xam ni am na daal te. am maanaam lu nit mën a def la. lu mu waaw lu mu diw mii dafa am bayre. dafa am bayre kon ko defal bayre. waaw laay nag mën ngaa defal nit ki bayre te mën naa bañ a baax ndax nit ki mën naa mën naa mën naa mën naa junne mën na koo jàpp. boo ko defaree bayre mën na bayre mën naa bañ a baax léegi boo la nga defal nit ki bayre bi da xool ba xam kii nii am na rab bu ne si moom wala am na junne junne si moom waaye junne bu nekkee si moom loo ko defal mu yàq ko ah, da ko da loo ko defal mu yàq ko mën na ko yàq moo lañ ñoom dañoo mokkal alxuraan d'accord mbokk yi kon ma fàttali ne ñu ngi fiy dalal Serigne euh, Djily Gaye mu jógee Touba ñu nag man ma xam la bu yàgg yàgg yàgg xam ne nit nga koo xam ne que yàgg nga yëngu ci mel ne ay wala asrar sax xam naa danaa ci laaj tuuti wala bu fekkee xam nga ci dara yu demee noonu mm-hmm. ñu seet ak adat yi ma fàttali ne numéro numéro téléphone Djily euh, moom moo di 77 144 05 02 77 144 05 02 wala boog 77 471 02 52. jiili euh, yow nag fay tudd rawxaan tudd fii lu mel ne xuddaam tudd fii lu mel ne ay jinne ne am na yu baax am na yu bon am na ci yoo xam ne boo leen defalee bayre jinne ji dafay ñëw yàqaat ko. Hmm. même bu ñu takkee téere wala yu demee wala sax am na ñooñu xam ne wutalee téere duñ ko bëgg a takk wala seen rawaan koy dàq wala yu demee noonu. waaw am na ñoo xam duñ ko bëgg a takk waaye seen rawaan moo koy yàqaat. moo koy yàqaat duñ koo bëgg a takk ñu mel noonu nag maanaam da xam da xam li ko dal da xam ne kii nii dafa am dafa am rab nit ko am rab dafa yomb xam boo ko xoolee xam ne kii dafa am rab nga daal di dindi rab yi ndax fi ñu nii ku naan la mën na laa tàggaleeg saw rab waxu la dëgg. waaw. rab yàlla moo ko booleeg doomu aadama moo ñaale koog moom. Mhm. ndax nit ki dana faatu lu yàgg sëriñ bi ñaan sax dana faatu lu yàgg bàyyi fekk nit ki ak ñu continuer di dem rab nit ki da koy judduwaale dakay judduwaale waaye nag mën nga koo fexe ba du la yàqal. maanaam nga aar ko. nga aar ko ba du la yàqal ndax ndax ndax ñoom dañuy dañ lay tàyyalloo. xam saa tey nga bëgg a xëy dem liggéey fenn wala nga am programme ñu yàq programme bi ci tàyyalloo la. Mhm. wala nga génn ñu ñu ñu ñu defal accident wala yu mel noonu. Mhm. toujours nag bu fekkente ne ni neexal nga sa diggante ak ñoom loolu lépp du sa am. Mhm. loolu lépp du sa am daal. boo neexalee seen diggante ak ñoom da nga leen di jubale jubale rab dafa am jubale leen fekk na am na ay sarax yoo xam ni dañ koy bëgg mhm. nga di leen ko defal am na ñoo xam si nii seen rab deret la ñuy laaj am na ñoo xam si nii seen rab bëggul deret boo ko defee da ngay dañuy am problème ok waaw am na ñoo xam ni seen i rab dañuy laaj ay fruits wala ay guro wala soow yooyu yooyu yu am la yoo xam si nii maanaam da nga koy saraxeel am na ñoo xam seen seen rab ay couleur la ñuy bëgg mhm. couleur tissu moom la ñuy bëgg nga saraxal leen ko bu ko defee maanaam seen rab boobu da leen di aar na nit lu mën a faj faj faj faj du xam maanaam maanaam maanaam li li li boole rab bi ak ginne ji yàlla moo ko def. Mhm. nit ki li ko boolee li ko booleeg am boobu yàlla moo ko def du du pexem doomu aadama bi léegi doomu aadama ci boppam nag yàlla moo wax ñaan leen ma may leen adduhooni astajib lakum. Mhm. léegi doomu aadama dafa am ñoo xam ne si nii nit koo gis am na rab waaye dangay gis ki nga xam si ni mooy faj day am rab ëpp doole rab bi kii am client bi am. Mhm. léegi bu ko defee ci lay sukkandiku pour mën koo pour mën koo faj ndax léeg nga song nit koo xam dafa am rab raboo songaat la yow sa wàllu bopp. mu xeex ak yow mu xeex ak yow. nga daj lu metti ba nga xam ne boo xëyee da nga dem hôpital wala wala wala wala nga sonn loolu loolu xam naa ko man. waaw da da lay contre. waaw da lay contre da ngay kii rab mu ñëw attaqué la. waaw waaw da lay contre. d'accord nga xam ni maanaam maanaam yow maanaam bu fekkente ne maanaam ay bagages yoo ko mën a. yoo yoo mën a aare mën nga caa d' accord jiir yi dafa am ñaari affaire yoo xam dafa bari werante maanaam xam nga wërsëg yàllaa koy joxe mhm. mais da ngay ku ne ñëw man damaa bëgg nga ñaanal ma ci wàllu wërsëg loolu mën naa ne waaye yàlla moo ne ñaan leen ma may leen adduhaaw salaaxul mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit waa adduhaaw salaaxul mu'min waaw waaw ñaan mooy ngànnaayu jullit léegi nag nit ki am na koo xam ne si ni tey jii maanaam bu toog toog di ñaan mën naa am du ko man ndax yitte dañoo bari da gis koo xam si ni ab commerçant la wala ab tukkikat la wala wala lu am lu xam ne ñaan am ñoo xam ne sangu farata sax mënuñu ko te bala ngaa ñaan da ngay sell. Mhm. sab xol tamit sell. Mhm. ndax mënoo mënoo ñaan ba pare di dem di jiitu kenn. boo ñaanee doo jiitu. Mhm, yaa ngi dégg koo xam ne si ni nag maanaam dafa ab xolam day sell dana mën ñaan yàlla yàlla nag mooy maye kenn mayewut lu yàlla. am na ñoo xam ne dañuy ñëw ñu ne ñaanal ma yàlla waaye dañuy am lu ñu yëkkati jox la ko. nga mën a am xel mu dal pour ñaanal leen yàlla. Mhm. waaw noonu nga koy defee waaw. tabaarakallaahu euh, kon nag 144 05 02 77 144 05 02 471 02 52. jiiri da ngaa bind fii lu doy war ci sa kayit bi de kayit bi du ngóora. waaw ngóora moo xam naa ne góor ñi daañu ko war a soxla maanaam ñi nga xam ne xëy na bu ñuy sëy. Mhm. seen kattan du demee noonu wala yu demee noonu est-ce que. Mhm. dafa am loo xam ne lii ci wàllu faj la. Euh, sunguf wala am loo xam ne da koy ñaan. Mm-hmm. wala da ngeen koy werde pour dimbali ko góor kooku. loolu moom secret bi duñ ko wax waaye am nañ ci loo xam ne daal boo ko jëfandikoo 30 minutes nga nga nga gis sa bopp. fanweeri minutes fanweeri minutes 30 minutes nga gis sa bopp ba mu jaaxal la. waaw ak koo mën a doon nag. lu ñuy naan la wala lu ñuy. lu naan la waaw. ah looy jox nit ki looy naan la waaw. waaw amul effet secondaire. amul effet secondaire amul effet secondaire lu ñuy naan la lu ma mënu maa leeralal lépp daal waaye daal xam naa ne amul effet secondaire te boo ko naanee sant yàlla bu baax. ci wàllu sëy ci wàllu sëy nga xam da ngay da ngay mën a sëy bu baax a baax a baax baax loo xam ne mosoo koo gis sa yaram daal. waaw ah, bu fekkee dangaa ngaa tële nag wala wala yooyu amu ci. xam nga tële mooy ku ku sonn. Mhm. tële mooy koo xam ne dafa sonn maa manoon na waaye mënatut. kooku mhm. kooku la gën a gaaw sax ci kooku la gën a gaaw. waaw ku ko jënd da ñëwaat 30 minutes. trante minutes amul ma dem te ñëw. ci am preuve. bu gaaw. <laughs> jili bu baax jili xam naa ne sëñ nag xam naa ne yow. Mhm. mbokk yi ma fàttali maa ngi fay dalal sëriñ jili Guèye mu nekkoon fii ci biir Ndakaaru da ah, dem Touba nag foofa tam yàlla defal ko fa maanaam fàttu boo xam ne bii ñu baree baree bari dañuy dem ci moom ba ci ay Europe loolu moom moo tax ñu ñoddi ko tey nag ne ko daal fokk nga ñëw baaxee ñu nuyu itam fii ci Ndakaaru eh, ndax nit ñi dañ lay soxla te naqari ngaa gis lool. sa numéro joxe naa ko léegi mooy cent 144 05 02 77 la alors jiili ci loolu euh, waa foo jëlee xam-xam boobu loolu 30 minutes yooyu foo noo noo def ba xam ko gëstu xam nga yàlla bu la boo boo nekkee ci mbir du ci sonn léeg-léeg sax nga am koo xam si day ñëw sax ne la jàppal si lii baax na waaw bu nañ la ci xamee rek sëñ Fall nga xam bu la jaay Dakar naka ñëpp xam waaw léegi man dama seen nekk ñaar at mën naa def naa six am na ko de fukki at ak juróom benn waaw def nga cinq fukki at ak juróom benn ci wàllu. ñaan ak liggéey lépp waaw def naa ko ci. waaw 2003 ak léegi ñaaraat la. ah loolu la 16 ans la. 16 léegi boobu ba léegi maa ngi ci nag te te maa ngi ci gis ay résultats te damay gën a gëstu sama xam-xam ndax moom dong laa am awma leneen sama baay moom sëriñ la woon samay maam ñëpp ay sëriñ lañu woon mën mii tamit maa ngi jéem nekk sëriñ. waaw la nga ca yaa ngi koy def la ma ca man maa ngi koy def te. maa ngi ciy sant yàlla bu baax ndax li ma la wax sànq rek man nga seen nekk léeg kenn indi dara ni la jëlal lii léeg-léeg kenn indi dara ni la jëlal lii nga boole yëpp bu baaxee nga jël bu baaxut nga delloo. tarkal waaye am naa ci yoo xam si ni daal toujours dama koy gën a segg gisoo léeg garab may dajale di xool di segg di gëstu ba nopp damay gëstu rek damay gëstu toujours damay gëstu daal. di xool di xool di gëstu fu ne ma fay dem. Mhm. di indi ay garab yu baax di jox doomu aadama yi ndax tamit loolu tamit. jaamu yàlla la mhm. ndax yow mal xiyaam mu nit faroo suñu borom dana wéet ak yow ne la doon liggéey dana la ko laaj dana la ko laaj waaw wax nga yàlla ci la dana la ko laaj bu ko laajee loo koy wax doon naa liggéey ci jaamu yàlla yi doon naa jox ay nit ay garab ñuy faju di wér mosuma tàngal xolub doomu aadama est lu ma mënul mën la mënuma ko awma ci awma ci sax kii kersa parce que bu nit ñëw boo amee cent personnes tey jii ñu woo ma téléphone presque vingt personnes yi moom mën naa man mën naa xëy na ma man si ñoom dara mais yeneen ñi yëpp dama leen wax mënu ci dugg boo ko mënul nga ne mënu ko mënu ma ko lu loo ci dugg itam da ci def temps waaye li nga man nga soobu ci li ma man ma sóobu ci ah loolu mooy mandute xool bu baax ba nga xam ne ni lii man naa ko ma sóobu ci waaw sa su ma ci xasee sóobu tamit du ma du ma ci arrière da ngay dem ba mu jeex damay dem ba mu jeex tubarkalla léeg dangay dégg jiili kenn romb la ci Ndakaar wala Touba wala Saint-Louis ne la man de damaa yore njaboot wala yu deme noonu wala dafay wut lu mel ne am xëy mooy liggéey léeg-léeg mu mu jafe ndax loolu umu moo koy joxe wala lu xew. loolu li nga mën a joxe bari na rab mën na koo joxe. Mhm. umute mën na koo joxe. Euh, ay ab liggéey bu ne ci nit mën na koo joxe nit ñi dañuy liggéey nit ñi ba duñu am dara loolu ma gis naa ko. am na ñoo xam ne tey maanaam dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy lu bari mën na koo joxe daal maanaam liggéey mën na koo joxe umute mën na koo joxe rab mën na la koo jox. yàq la cat mën na la koo jox. wala ñu yàq la ba doo am dara lu ci mën naa lu ci nekk mën naa am bu ko defee maanaam loolu boo ñëwee da xool ba xam lii lan moo ko waral boo ko xam boo xamee li ko waral nga ne ko lii kat lii moo ko waral nga wax ko ko amaana sax boo ko waxee danaan la dëgg la parce que nit ñi nit ñi nit ñi am xam am nañu xam ci seen bopp mm-hmm. koo ci wax dëgg dana xam ne lii dëgg la mhm. bu ko defee bu fekkee mën nga ko dimbali nga dimbalu ko tamit xam ne yàlla mooy nangu ñaan waaye day fekk nag nga am ay kii ay ay ay mbir day fekk nga am say mbir yu wóor yoo xam si ni foofu nga koy teg maam mbir ku ñëw nga jox ko ca boo ko boo ko ko joxee du toogaatee ay ay fan dana la woo ñu la am naa liggéey dana ah. la woo waaw dana la woo ñu la am naa liggéey léegi maa ngi liggéey ci sa expérience bi la yàlla may sa wàllu xam-xam hmm. sa ay maam hmm. daan def lu mel noonu yàlla di leen ci feeñu hmm. di leen ci defal xéwal fàttaliku nga foo defaree nit muy wut liggéey nga dem mu am liggéey man waaw ah, yow ci sa jiili waaw nga non ëpp na junni ëpp na ñaari junni sax ah <laughs> 2003 ba léegi loolu ñëpp xam nañ ko waaw wax nga dëgg maanaam maanaam maanaam damay toog kay damay toog nit nit nit woo man ni ma jëlal big bi jël numéro bi maa la yónnee lii wala ma gis benn waree bu ma yónnee nangam. ne ma yaa ma defaloon nangam waaw. wala ma wala nit ñëw ni ma nagu màggal gi maa la koy maa la ko jox ay ay xaalis yu bari di ma ko jox. te fekk na yow ñaan rek nga ca def. waaw. tabarkalla. am na ñoo xam ne si ni ay tubaab lañ du ñuy nit ñu ñuul gis résultat moom mu boole ñoom coloré tubaab dafa am coloré gis résultat bu baax. Mhm. moo tax maanaam duñ toog weer te yónnuwuñ ma dara. ndax ñaan koo def ci ñoom. ñaan koo def ci ñoom. waaw mbokk yi loolu moom loolu. loolu moom du fekke ne dama lay de am na am na lenn ci lu ma xam ci yow. loolu moom yàlla def na ko yàlla la ci yàlla gën a jàppale euh, fa fa fa euh, euh, waaye mais dafa am yàqule baatu yàqule ak lu koy waral yàqule. mooy koo xam ni dafa yoroon na yoro yor alal ba bu bari mm-hmm. mu dem ba yàgg yoratul dara yàqule dafa am ci nit ñi. ñoo xamante ni maanaam rab boobu ma la waxoon. Mhm. da koy def da koy def da koy def. Mhm. nit tamit mën naa jàpp nit liggéey ko ba mu yàqule. Mhm. yàqule. waaw yàqu tamit am na yàqu si wàllu yaram. nga xamante ni maanaam da dem ba feebar feebar boo xamante ni da ngay toog rek doo mën dara. fekk naa amoon nga ay jamono yoo xam si mënoon ngaa dem ak a dikk. mënoon ngaa euh, am sa am sa am sa sutura lépp loolu mooy yàqule. loolu nag bu am bu dalee nit ki. dañ cay ndax ñun bul fàtte na ñun ay ay doomu aadama lañ ay doomu aadama lañ war na ñoo mën a romb nit ki sax xam lu ko daal mhm. jëm ko saa jàppale jaamu si yàlla moo tax bu ñu gisee koo xam dafa yàqule loolu dañ ciy sawar pour pour jàppale ko daal moo tax mhm. bind ko foofu yàqule waaw maanaam yàqule mais dafa am yàqule am yokkute yokkute dafa am koo xam si ni dafa am dara mhm. ma ngaa am sa benn magasin ak sa benn kër ak sa oto waaye man ngaa am oto bu yem ba nga am 4 x ba yàgg nga am ay millions. waaw millions ak ay milliards mooy yokkute. Mhm. dooleeku. waaw mooy dooleeku. doolentaan waaw da ngay da dangay dangay ngay da ngay dangay ngay da ngay nekk ci sa nji li mu lay ñaanal wala nga dem ci keneen ku la neex mu lay ñaanal nga dem ba yàgg sax léeg-léeg nga toog doo ko gisati du la gisati nga dem toog. waaye bu fekkente ne ne muus nga yeewu nga sax léeg-léeg yenn jamono da ngay ñëw ñu dolli la. Mhm. ñu dolli la loo xam ni. ndax étape bu nekk dafa am. façon hmm. ñaan bu nekk dafa am. façon secret bu nekk dafa am. yaa ngi ci étape bii bëgg ngaa jaar ci beneen étape bi ci des. waaw da ñaan yokkute kon ñaan yi bokkuñu. niveau yi déet ñaan yi bokkuñu de. ah, ah waaw loolu sëriñ sax xam nañ ko. ñaan yi bokkuñu. sarax yi bokkuñu. am na ñaan yu yem. am na ñaan yu mag. am na yoo xam am na yu gën a diis yoo xam si ne xalawatu lay doon. Hmm. mooy dugg xalawatu bi nga gis nit ñu di ko def di ko tëju. ñu ñaan yàlla rek. rek. waaw ñaan ñaan yàlla ñaan yàlla nag boobu baaxee suñ Maodo jaamu yàlla la. waaw yow si sa wàllu bopp jaamu yàlla la da ngay ñaan nekk ab sëriñ di ñaan ba yàgg sax du dootoo bëgg a ñaanati da ngay bëgg ku ñëw ngeen ko nekkuma fi parce que da ngay jaamu yàlla. waaw. ndax day neex si yow. waaw da ngay wéet ak yàlla rek. da ngay wéet yàlla day neex si yow. tudd yàlla gi nga tudd yàlla di dem di dem di dem di dem bu yàggee day neex si yow boo gisee koo ñaan da ngay toog ñaan boo ko gisul ñaan. ndax tu sikar sikar tur yàlla lay doon daal. waaw tabaarakalla allah bi zikrillahi tatma'innul qulub sëñ Jili jubóole ay mbokk wala famille yu jaxasoo wala diggante jëkkër ak jabar léeg day faral di am coow li na kur te damaa gis fii nga bind fii jubóole te ñaare mën naa nekk mag ak rak mën naa nekk ab sëy mën naa kii am nag ñoo ñooñ bu ñu rek mu tas wala nangam ak nangam jubóole jubóole mooy lan xam nga tey problème yi ci àdduna bi yëpp ñàkk juboo moo ko waral mhm. ñàkk juboo mhm. moo ko waral tey jii accident yi am si réew mi sax jubóore bu ci amoon mën naa am du bañ am ndax am na junne yu def accident di ay soog ci dëkk ci tali yi jubóole xam nga li ma la wax jubóole mhm. boo ko defee lépp ay juboo kër gi ñëpp juboo yaag sa soxna ngeen juboo yaag sa goro ngeen juboo nga jubóog ñëpp. Mhm. mooy jubóole. loolu mooy jubóole mooy jubóole mooy waaw boole xol yi. Mhm. wala si ay addaka bi ne bi moom nii na la faq damaa fi dal jami'an maa alafta benn benn xuloo jooju mooy maanaam ay xol yu. yu booloo yu booloo. Mhm. waaw. fa alafa benn xuloo bihim waaw alafa fa alafa benn xuloo bihim. la woon faq damaa fi dal jami'an. loolu dafa am ay secret yoo yu yooyu sax dafa am secret yu ñu ciy def. nga xam ni maanaam nit ñi dañuy yow da ngay jubóog kii ndax euh, féewale dafa baaxul du jëmal nit kanam. Mhm. du jëmal nit kanam nit koo xam ne si ni dafa dem ci sëy am day sëy ci kër. Mhm. bu sañoon jubóog waa kër ga. waaw ku nekk ci sa bureau di liggéey bu sañoon jubóog directeur am. Mhm. koo xam ne ni day day liggéey tamit day liggéey day day day liggéey bu sañoon jubóog ña muy liggéeyal. moo ma bind foofu juboole nga jubóole maanaam boole boole am na ñoo xam si ni tey jii dañuy dëngoo mag a rakk ñoo xam ne dañuy dëngoo jubóole jubóole nit ak aw rabam ba du ko def dara mm-hmm. ndax am na rab yoo xam si ni tey jii boo jëndoon dara yeew ko am xar tey jii boo ñëwee fekk xar ma faatu gis naa ci ñoo xam si bu ñu jëndoon dara bu ñëwee yeew ko léegi nag ñàkk juboo ma ko waral ñàkk a jubóo maanaam ñàkk moo ko waral waaw d' mbokk yi ma fàttali ñu fi dalal Serigne Djily Gaye di borom xam-xam nag loolu moom yàlla def na ko 77 144 0 144 waaw 05 02 77 144 05 02 mooy numéro am am naat numéro 471 02 52. jiir yi tey moom du ma la bàyyi ndax li ne daa bëgg nga yulleeku wax nit ñi li nga xam ne moo leen di jariñ ku la ci soxla nag loolu moom beneen affaire la waaye xam nga dangaa bind fii yu am am solo moo tax ma koy cuqati nii waaw léegi ku dott moom mooy lan ku ku doon dem ñu téye ko. waaw doot da gis xale yoo xam si ni dañuy dañuy dem te di dem. dañuy rëcc rek dem. waaw ñu dot la ñu toog ci kër gi. loolu mooy doot daañu ko def wala jigéen. daañu ko def góor wala jigéen daañu ko def jigéen waaye nag ah, ah, loolu moom maanaam nit du ñëw rek ni ma dootal ma diw ma dootal loo ko parce que erreur da ci mën na cee am. waaw ndax wóorul. ndax wóorul. ndax xamoo lu mu ci jublu. xamoo lu mu ci waaw loolu lay am. wala doomam la wala mbokkam la wala waaw waaw maa ngi doot nit téere ba fa nga ko mu réer. bu ko andi beneen problème. waaw waaw defee du mën a génn. waaw du a génn daal. Mhm. Mm. léegi euh, ci loolu da nga fi maanaam da nga fi bind waar ku loo xam ne li yow doo def kenn dara waaye loola waaye def def mu këppuwaat ci kawam. waaw loolu am na. abo ah bon waaw. am na loo xam si ni boo ko boo ko jëfandikoo. Mhm. lépp lu la waaye def mu këpp ci kawam. bu dee lu bon la. Hmm. lépp lu la waaye def. Hmm. mu dellu si kawam. secret boobu am na suñ Maodo mooy secret ñetti àjjuma yi bi ñu boole ndoxum géej. loolu waaye def mu dellu ci loolu waaye def mu këpp ci kawam liggéey bu nekkoon seew mu deñ xam nga problème mooy nit ñi dañuy liggéeyante nag. waaw xam xam nga ko xam xamoo ko. ah xam naa koy. waaw <laughs> xam naa ko waaw léegi nag amee loo xam si ne loolu waaye def mu këpp ci kawam loolu baax na ndax am ñoo xam si ne fi ñu doon nii xamuñu sëriñ xamuñu dara dañu toog rek. ndeysaan am na ñoo xam si ne xamuñu sëriñ lu ñu xam dem liggéey ñëw jàpp seen bopp waaw am na ñoo xam ne dañoo iñaan waaw te ku iñaan moom du jiitu alaxan soodu laayu soodu mm-hmm. ku iñaan du juitu déedéet léegi nag yow yow yow xam nga sa benn waaye bu nekk fee boo demee jox ko dara rek mu liggéeyal ma diw mii ba ba mu mel nii mel naa bu fekkente am nga protection kaaraange bu la bu la aar nag loolu du egsi bu ko defee ba bu egsi wala ku la ko defee sonn loolu ku la ku def mu këpp ci kawam. maanaam moom la yéene loolu mooy tax ñoom ñu leen nekkee ñu bàyyi ko. waaw waaw su ko defee ku doon liggéey xam ne liggéey baaxul. waaw ku doon liggéey xam ne liggéey baaxul te moom doo xam fu mu fajoo jee. parce que am na secret yoo xam bu ñu ko defee. doo xam ku lay mën a dindi ku la ko mën a dindi. kenn du ko dindi ah, sonn waaw. léegi euh, loo xam ne maanaam wala boo koo xam ne wala mbir moo xam ne foo ko def foofa du lakk. waaw am na secret yoo xam si ne foo ko def foofu du lakk mën nañ koo génne ci alxuraan. mën nañ koo génn ci leneen lu dul alxuraan ca day ca day ca foo ko def du lakk mhm. waaw am na yoo xam koy liggéey ci dég bu dég bu kii dég bu dég bu dég bu fer bu jeex waaw suuf soosu dañuy tibb am nañ ko mocc benn jet guñ ko def foo ko def du tàkk du lakk du tàkk mukk du lakk moo xam marché la wala place wala fu mu mën a doon moo ci gaaw même bu dee fooy jaayee du lakk du lakk te secret la rek te secret la yéeme sax waaw léegi koo xam ne maanaam euh, ku mënul am dara. Hmm. ak korte. korte hmm. xanaa mooy korte bokkul lu la def mu delluwaat yow. korte korte xeetu liggéey la boo xam ni loolu xam-xamu janaa la. janaa. jalang mooy ñeneen ñi xam dañuy bu neexee yàlla moom bu naqaree ah, yàlla moom di rey ay. Ah, ay deret di def mystique yooyu. ñun sax yooyu duñ ko def waaye yàlla may nañu lu koy dindi. man ngeen ko dindi waaye doo ah. ko def. ndax léeg nga dem ci. gis koo xam si ni day feebar feebar boo xam fu mu dem du wér fu mu dem du du du wér len lu ko mën a saafara loolu mooy kort koo xam du wér mukk lu ñu du wér loolu nag xam-xam ñaari doon day am ay picc di neew wala yooyu noonu wala nga xam ne am na lu ñu ko def rek wala nga xam ne am lu ñu ko def loolu nag ñaare boo defee ñaare boo defee ay alxuraan yi mën naa bañ a deñ da nga gis koo xam si ni boo ko bindaloon téere bi yëpp maas ko biñ la téere bi yëpp bañ koo maas biñ téere bi yëpp tomb ko bañ koo maas boo ko defalee tamit du ko jëriñ dara. il faut moom lu ma waaw am na garab yoo xam ne nag xam nga am na picc yoo xam si nii duñ dal ci garab. déedéet. xam nga tipp ripp lañ koy wax. waaw am na garab yoo xam si ni picc du ca daal. waaw. ah bon waaw am na garab yoo am na picc yoo xam si tamit maanaam duñ duñ mos a dal ci garab. ci suuf si rek la ñuy nekk yooyu nag daa am secret yu ñu ciy def ñaari ñaari ñaari façon yooyu. day lu bari ci xeeti liggéey yooyu daal duñ ko mën a leeral bu baax a baax nag. waaye xam naa comprendre naa li nga wax parce que moo tax may joxe seen numéro nii 77 144 05 02 77 471 02 52 seen numéro la alors euh, Kortu jubale acce kuy jàng école a ngi waaj a tijji. Hmm. wàllu kiis ngir xale bi lu mu tiim xam ko. waaw loolu moom xam dañ ci xale yi kon nag war na nga see jóg ndax kiis dafa am solo. Hmm. kii kiisu xale lu mu jàng xam ko nga bind ko bala ko lem mu koy naan dafa baax boo bindee fanaan saafara si biti bu subaa nga boole kook lem mu koy naan waaw ah, da nga koy bañ a tëj bàyyi ko ci biti waaw bàyyi ko ci biti boole lem mu koy naan loolu dafa tax xale bi xel mi ubbeeku xel mi neex lu muy jàng du ko xam da koy xam te da koy fa du ko fa du ko fàttee du ko fàtteeti ko fàtteeti te da koy xam lu mu jàng da koy mokkal te du ko kii loolu dafa baax na kiis ak examen yooyu noonu dafa baax concours ak yooyu yëpp dafa baax. si ci wàllu wàllu élèves yeeg waaw ci élèves yeeg yooyu noonu day tax a kii. Mm-hmm. day tax a xel mi ubbeeku daal. Mm-hmm. na am na xale yoo xam ne duñ sawar si njàng mi ci loolu leen sawar loo. Ah, waaw ñàkk mën a jàng bu baax wala seen xel mënu koo jàpp moo tax duñ nangu duñ sawar si njàng mi. d'accord mais euh, euh, ni ñu koy waxee ti maanaam da nga nekkoon Dakar ba benn instant ñu xam la fi nga delluwaat biir Touba. waaw. lu lu ko sabab. waaw xam nga Touba moom fa laa gën a mën a liggéey lépp lépp na benn Dakar gi damay loué mais Touba sama kër laa nekk. Mhm. ñaareel ba tamit maanaam ab sëriñ moom fu mu mën a nekk. Mhm. sëriñ mën naa taxu dem fu ko neex. Mhm. waaye ab numéro daal bu mu soppeeku. waaw ab numéro bu soppeeku rek baax na. waaw parce que sama numéro bii nag moom yàgg na si man lool. ëpp na 2003 boobu ma la wax noonu. lu jiitu 2003 am naa numéro bii ma la ma la jox noonu. mooy 144 05 02. sëriñ moom bu ko neex mën naa dem. mais am numéro am daal bu mu soppeeku. ndax ci la ko nit ñi di soxlaa. ci la ko nit ñi di soxlaa waaye pour lu ba ngaa kii daal am solo daal mooy mooy mooy garab yi mën nañ la ko libere fu fu la neex daal fu la neex. Hmm. mais mais lan moo tax léegi nga ne góor buy sëy. man hmm. nga yokk kattanam ci 30 minutes man kay loolu daf ma jaaxal trop pourquoi. xam nga ngóora mooy sëy waaw faiblesse boo ko amee doo sëy doo sëy mm-hmm. waa léegi nag loolu boo jëfandikoo loolu da ngay da sawar dangay mën a sëy waaw boo ko defee affaire yi ngay yëg waaw affaire day monté mm-hmm. hmm. alors ci wàllu asma lu ngeen ci xam waaw asma moom ay jamono daan nañ ko faj mais léegi fajatuñ ko dama ko bàyyi dama ko bàyyi ndax garab gi ki ma ko doon bokkal liggéey man du man dong may liggéey am naa ñeneen ñoo xam ni dañuy ànd ak yow dañuy ànd ak man ci liggéey bi mhm. waaw yàlla dogal dogal nag kooku wàññee ko daal jamono yëpp passé mhm. moo tax moom garab gi amatuma ko d'accord nga daal di nga daal di euh, euh, xam ne kii sëy bi muy sëy mhm. day faral di tas wala ki nga xame ne dafa bëgg a toog ci ab sëyam ndax ñaar yooyu ñoo bokk wala bokkuñu waaw ñaar yooyu am na ñoo xam ni dañuy bëgg a sëy toog ci seenu sëy ca duñ ko man far tas waaw am ñoo xam ñoom am na ñoo xam ne nag dañuy dañuy dañuy sëyi euh, ba pare ñu leen di xeex ci sëy ba te ñu bëgg faa toog loolu dafa am. waaw waaw lu ci nekk rek ki nga xam daa bëgg a toog ci sëyam. mën hmm. nañoo koo jàppale mu ci sëyam. ki nga xam ne nag maanaam day def sëy bu mu sëy mu sëy demaat ba sëy beneen sëy. di hmm. kii loolu rab a koy def. ah bon waaw. boo amee ndaw faru rab jigéen boo amee faru rab rab bi mën naa tas sëy bi. waaw mën naa tas sëy bi. mën naa jàpp jëkkër ji di ko néewalal kàttan wala mu jëkkër ji di xuloog moom saa su nekk wala wala muy mu koy mu koy indil ay estowaar wala ndaw si boppam di di ko taayaloo mhm. ba ñooñu tamit décoration si moom mhm. waaw wàcc ko mu dem fu mu dem nañ koy wàcc rek loolu kooku dafa dem dafa feebar dafa war ji mhm. ku mel daa war a faj ji waaw xale fu mu dem rek ñu ko waaw am na si góor ñi am na si jigéen ñi nag ak ñaar ñaar côté yëpp waaw am na si góor ñi am na si jigéen ñi am na jigéen ñoo am na góor ñoo xam si ne bu ñu ndaw sarab te mënuñu ko te mënuñu te faju fajuwuñ ko mhm. loolu la leen defal soit mu seen ngóoro soit mu seen ngóoro wala wala mu mu mu leen di mu tas sëy bi mhm. waaw mën naa tas bi nit ki nga xam ne da ngeen a nekk maanaam mais mu lay xeex ba noppi bañ la waaw lool waaw loolu yow léegi da wut da wut loo ko baaree wala da dem ci kaw wala lu xew. dañ xeex ak moom dañ xeex ak moom. parce que parce que euh, koo xam ne kii maanaam ku lay ku lay xeex. bañ la lool nga ku xeex bañ la lool. waaw nekk da lay xeexee. waaw loolu yëpp nga dëgg nu nekk da lay xeexee. Mhm. léegi nag boo defee loo xam ne si ni maanaam bu bu bu bu la bu la defee dara mu këpp si kawam. ci xeex bi la ñaan laal laalaake du lay bàyyi. da lay bàyyi am na ñoo xam si ni dañ lay jéem a xam rek waaw bés bu la xamee bala bés xamee noo mel dañ lay baax. bu baaxul ñu toog bu ñu baaxul ñu doog laa bàyyi am na ñoo xam ne si nag yàlla moo leen bindee tooñ daal dañuy tooñ ay nit ki tooñ per ñoo xam ne dañoo iñaan am ñoo xam ne dañoo iñaan dañu duñu nit ki dara. waaw wala wala lu nit ki mu yàqu. waaw xam nga seen télé bi dafa nekk télé bu mag ñëpp koy seetaan. du ma ko mën a leeral daal ndax Sénégal yëpp benn famille la. Mhm. waaw mais éñaan daal am na. am na ci famille yi loolu kay c'est te yàq am ñoo xam si ni tamit naa ngi gis nit dara duñ ko ko yéenee duñ ko ko yéenee dañuy mën a jóg pour dem def defi benn affaire boo xam ni man daal laa xam ne man loolu mosuma kaa defal kenn. yow doo ko def. mukk doo yàqal kenn. mosuma kaa def. man damay mën a defar defar mënuma ko ma téye sama bopp. maanaam yow luy jubale rek. luy jubale rek. luy jubale luy dox jàmmu luy tax nit ñi bég ci lay dox. waaye waaye doo taqale. waaw doo xeexal kenn. xam naa ni ñuy tàggalee ci ci ci saayir bi ak si baatin bi bu dee si saayir bi yomb na ay jar lay doon rek ak ay si garab ngay dem reen garab ngay tàggalee. Mm-hmm. bu dee si baatin lu daan looy bind werdu ko. mu jeex yooyu yëpp dara da see baaxut. ndax nee la sëriñ moom dara gënu koo féete ci jaamu yàlla ndax loo xam si ni amul noppalu mhm. gis nga ab sëriñ du noppalu ah? du noppalu soo waxee sa soxla ba noppi keneen wootee wax soxlaam sa am na jaamu yàlla yi say far di lay xaar wax nga dëgg de yooyu yëpp boo ko boolee ah da ngay da ngay nekk ni koo xam si ni maanaam bu bu la yàlla faaw nga anam ndimbalu suñu borom sëriñ ci yàlla rek la mën a wéeru dem képp képp mënta wéeru ci keneen di dem bu loolu doo dem waaw yàlla ngay wéeru dëgër dëgër moom rek doo sax am àndandoo sàkku yàlla rek sàkku yàlla wéeru si moom di fexe nag maanaam di di yor sa puso di nas ak di nocc moo gisee loo xam si ni nit dana ñëw am am benn programme sax nga waxtaan ak moom ba mu jëlee génn ci programme boobu nga yedd ko day gis koo xam si ni jëkkëram da soxnaam jëkkëram da koy takkal ji mu jóg nii day ñëw pour takk ko xala mm-hmm. pour takk xala jëkkër ji waaw lu nekk góor waaw léegi nag yooyu da waxtaan ak moom ba ba ba ba ba ba loolu xam ko yi yëpp ak loolaa ngay ci nekk yëpp yaa ngi dégg ak tamit maanaam ki ki nga xam si ni waxtaan ak moom baax daal ba mu bàyyi ko man loolu dama koy def lu bari ba ba ba la waroon a def. ci day ñëw andi intention boo xam si ne leer na ma ne lii nii boo ko defalul bu génne dem ci keneen ku ko defalee. nga fexe waxtaan ak moom ba mu bàyyi loolu. loolu si loolu ci xeetu jaamu yàlla la bokk. déet ah loolu ndimbal la. Hmm. loolu ci xeetu jaamu yàlla la bokk bokk fàttali mbokk yi ba léegi. tamit Serigne Djily Gaye nekk fële ca tuuba di tamit doomu soxna jàng alxuraan lool itam eh, da jaar ci jaare yi waaye nag di jëfandikoo xam-xam bu sell boo xam ne bii du yàqal kenn lu dul lu jub. waaw léegi ki nga xamee ne yàlla dafa dogal euh, yal na yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen mm-hmm. mais ci biir ñaan yi dafa am secret mm-hmm. ne nga kaamil alxuraan bi sax boo foboon lépp xëppoo ko mm-hmm. du tax dara ñëw fekkente ne la ca war a am wala ñam war a àndal àndul ak loolu mbir yu nuy ay xususiyaat la ay ay ay yu nuy jagleel la mbiru këyit këyit mooy lan waaw këyit mooy dañuy bëgg a tukkee mën ngaa toppatoo këyit ngaa am këyit boo xam ne mu jafe këyit bi nga xam ne nga toppatoo mu jafe da ngay xool lu ko waral parce que kenn ku nekk war naa mën a tukki. Mhm. kenn ko nekk war naa mën a lijjanti say kayit. mais am na ñoo xam si ni dañuy kayit wu ndaw carte d'identité sax am ñu Sénégal yu nekk fii nii ñu ko am man gis naa ko. fu ñu dem ñu leen carte bi daal def lii ak kayit laa loolu ñu leen koy wax a déposé ak loolu ñu wax leen ko. rek yëpp ay ay carte d'identité boo ko amul doo am passeport. déedéet. doo am passeport. Mhm. mën a génn yëpp nag dafa am ay gàllankoor yu koy def. est-ce nit ki bu xësee am ay gàllankoor rek lu ci sa carte bi mën na ca am gàllankoor passeport mën na ca am gàllankoor ba nga am sa këyit ba pare sax génn fii nii bëgg a dem si beneen dëkk pour am këyit nekk France wala nga dëkk pour am këyit pour liggéey. kon dëkk yoo xam ba fa am këyit doo fa mën a liggéey. Mhm. waaw loolu lépp nag pour nga liggéey pour am la am am dara loo mën a dimbalee say moom say mbokk. Mhm. loolu nag maanaam maanaam dafa am rab boo xam si nii boo àndee moom doo am. dara lu ñëw. doo am du bëgg nga am lu bëgg nga am te temps war ngaa mën a am. waaw war ngaa mën a am. waaw léegi jamono bii ñu toll sëriñ Djily Gaye ma fàttali ne réew mi dafa bari ay accident yu bari yu am. Hmm. lu nekk nag ñu ko koy woowee. ni ñaa ngi ciy wax ñii naan problème mu rab ñii naan nangam mais gannaaw yàlla ndax nit mën na mucc ci accident. nit mën naa mucc ci accident bu baax a baax baax a baax loolu. dafa am loo xam si ne gouvernement bi moo ko war a def. Mhm. ay xeeti sarax. accident yi wàññeeku. am na ñoo xam si ni ñi moom seen autoroute bi comme exemple autoroute bi ñi ko moom duñu ay Sénégalais ñoo ci war a def seen seen sarax. waaw ah, ñaan ci. ñaan ci def ci sarax def ci def ci def ci ay sarax dafa baax de. Mhm. sarax. Mhm. dafa baax. gis nga accident yi yi yi am nii dañoo war a seeti nitu yàlla mu ñaanal leen si ndax am réew. dañ koy sang. Mhm. maam euh, Cheikh Cheikh Tidiane si al Maktoum daan na ko wax. Mhm. nee na koy sangee mu ne xol bu sell moo koy sang wala deret. waaw xol bu sell rek deret mu ne xol bu sell moo koy moo koy sang wala deret loolu la wax. waaw wax nga dëgg de. deret ji exemple man si sama dégg-dégg laa wax de sama gis-gis. waaw ah. ay waxam sax man man. dafa la xaree xam waaw. kilifa ay waxam moom mënuñu ko kii moom rek moo ko xam waaye man jàpp naa ni daal eh, rey ay nag deret jooju dana wàññi sarax dana def dana def loolu. waaw ñaar xol bu sel nag boo ko waxee mooy ku xolam sellul ku xolam sellul doo mën a ñaan mu nangu. waaw waaw la nga bëgg doo ko am. doo ko am xol bu sell eh, xal bu salim. moom mooy tax a mooy tax a gis ndax yàlla bu doon bu la doon seet si def naa ci sa xol bi lay lay jubal si waaw xool moom yàlla xool rek lay xool waaw xool xool rek lay xool waaw mhm. xol bu seetlu boobu nag moo tax ngi nga ñaan muy nangu maanaam réew mi war ñoo dem ci borom xol bu seetlu mu ñaan mu ñaan mu ñaan ci réew mi d' accord accident yi wàññeeku accident yi wàññeeku mhm. mais est ce que des na ci ñaanal li itam danañ ci ñaanal ñaanal la sànq am na koo xam ni dama ko euh, joxoon jaaro benn jaaro waaw ñu ko doo dee si accident yàlla dogal mu jóge fii tukki dem Italie xëy suba teel dem di liggéeyi di dawal foog mu fekk dafa nees oto ba këpp këpp këpp këpp tourné tourné tourné ba dal ci ay kàmb di tourné di dem ba nga xam si ne ay hélicoptère ak police yi ay hélicoptère la ñu yoroon nag sapeur pompier ñëw jël ko jël waa ji yóbbu ko bi demee dañoo egg ci hôpital bi fi nga ko tëral ci hôpital bi mu jóg di dox médecin yi téye ko mun demee ñibbi ñu wax wax wax mun ne damay ñibbi. dara jotu ko. démb rek am na ko ma woo ko xam te ni beneen Espagne la ma woowee nee na maanaam accident bi mu def oto bi boo ko gisoon da nga naan fii nit génn wu fi dara jotu ko. est-ce que tabaarakallah am na accident yoo xam si ne sa oto mën naa yàqu de waaye dara du la dal moom. da ngay tey da nga dara du la dal. est-ce que loolu mooy jaaro bi wala. waaw am na jaaro bi am na ci secret boo xam boo ko boo ko ci defee doo accidenté moom jaaro bi waaw loolu moom dama ko dama ko rus nga woo ma ne ma damaa accidenté dem sama tànk daa dam fekk yaa ngi sama jaaro bii non non loolu du am tabaarakallah loolu nag kon loolu moom dama dama dama dama dama dama ko rus loolu mbiru ay jagleel la rek waaw ñun ñun nag wax dëgg yàlla jagle am na ci ndax am na ci loo xam te ni mayu suñu borom la. dama dégg léegi nga ne kuy ñaan wax nga ko léegi avant ñuy tàmbali soit nga donn ko wala mu nekk ci deret ji wala sa baay doon ñaan lu mag ci loo bëgg waaw xam nga bu fekkente ne sa waajur. da doon ñaan. da doon wér turu xam nga xam sama waajur suñu su faagee xam ne suñu turu rek la takkaloo woon. suñu su faagee kaabu daan wér turu yàlla. xam nga moom léegi moom deret ji na ca baayam. moom mooy na ci moom mhm. te da cee saf-sàpp mhm. deret ji naka ci moom mooy nekk ci doomam te da mhm. saf-sàpp yow doom ji boo góorgóorlu tuuti rek man suñu saalum Mbàkke moo ma ko wax moo ma boo góorgóorlu tuuti rek dana baax sëñ Saliou sëñ Saliou waaw ndax ku ku ku ku wëlër la woon te ku wëlër na rek sëñ Moussa Gaye est-ce que waaw bi tamit wax ma ko moo njëkk a jox kaamil alxuraan suñu soñe bo sëñ Mbacke waaw ni ma mën ngaa jàpp man ko dir mun a Abdou Majid na la wan ni ñuy jàppee Abdou Majid wan mu la ñuy jàpp mu yëkkat mu ko ni ma bind man ko waaw mun bind ma sa tur ak sa ma bind ko ba noppi mun ma lu jóge ci tàgg bu naawul jaaxale bokkam moom sëñ soñe bu waaw li ci nag mooy maanaam sa jom moo la fay yeggale mhm. ak sa yitte mhm. nit day am yitte. waaw da ngay am taxawaay. da nga am yitte yitte jooju nag moom mën na laa la fu nekk boo ko gëmee. d'accord ma fàttali na kon daanaka ñu ngi may wax ne ma sax waxtu waa ngi jeex fi ñu toll nii ndax waxtaan dafa neex lool waaye daal seen numéro téléphone mooy 77 144 05 02 77 144 05 02 wala wax 77 471 02 52 ma fàttali ne jiiri li muy wax ne lu mu fortu ndax man ku ko fréquenté la ku yàlla defal ak may la ci wàllu ñaan. néew na lu may toog ak nit wax ko lu mel noonu waaye dama cee xam ci ay mbir ba Touba ak fii nga nekkee Ndakaaru nit ci doon la wër yàlla dogal nga daw dem Touba nit ña fekk la foofule ba ñi nekk Europe yàlla yàlla jàppale la looy tëjee. waaw li may tëjee daal mooy euh, di di di di di di wax ne Sëñ tubaa amati na ndam. Mhm. ndax Masaalikul Jinaan bii ndamul Sëñ Touba la. Mhm. dara wax naa man du ma yëkkati sama loxo ca kaw. Mhm. waaye. bis bu bis bu eh, jumaa yi ak jàkka yi yëkkatikoo rek. Mhm. loolu mooy yëkkatiku bu bu dul loxo bu yëkkatiku ba bis penc. incha eh, muy muy muy muy xolub jullit yëpp sedd ci bu baax a baax. ñëpp ndax sëñ Tuubaa ku sonn ku sonaloon ci Ndakaaroo la. Mhm. waaye tey jii ñun lii sedd na suñu xol. warkal sedd na xolub jullit yëpp na xolub jullit yëpp. te defe naa yow mii soxal sedd na si. lool ñëpp rek. nel lool kay lool. <laughs> waaw di di wax naa loolu laay tëjee <coughs> di wax daal nit ñi nañ yéenante jàmm mhm. te xam ni ku yéen a ñëpp jàmm taxul ñëpp am jàmm waaye yow ma ko def da nga ko am tabarkal jërëjëf jërëjëf sa jili ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm sëriñ jili gaye ngoog boobu nag kon nag mbokk yi ma fàttali na nit la koo xam ne kii boroom xam-xam la ku baax la ko yàlla may la fattu ak su ci wàllu ñaan 77 144 05 02 damay sant say gërëm suñu waajur soxna Fatou Gaye di gërëm euh, say sant sama soxna maam Jaara Njaay incha allah ak sama beneen soxna Awa Awa Diop. tabarkal te xam ne ñoom ñëpp dañuy jàpp ndax tey jii boo dee sonal sa sa sa borom kër rek sa borom kër du am jotug werd du am jotug ñaanal kenn. tabarkal kon def ñu loolu. kon nag yàlla jàmm di gërëm di gërëm seen i yaay tamit. Euh, Marème Kane Yëmb Kane ak soxna Diop. maa leen gërëm bu baax jërëjëf. jërëjëf mbokk yi ñu doon seetaan kon yàlla defal ñu sutura wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu rahmanu ya rahim rabbi bima yasrul asana xat fajaa bi jaay afdal liman lillahi xalajaa حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم nuuran saati'an malaa